lejos. gannaaw ba nu jógee ci former mbër yi wutal leen ay métier wutal leen attestation association FILS ci njiital Cheikh Ahmadou Bamba Mbour dañu fa yéene ànd ak yéen ba seen métier jariñ leen gannaaw formation professionnelle yi ñu amal def ci yéen xam-xam def ci yéen métier ngir gunge leen nag dañ leen a sampal arène sécurité di agence bi nga xam ne képp ko bëgg a nekk professionnel ci wàllu sécurité boo fa jaaree da am attestation da am carte professionnelle bu dee ay activités yu lié ci gardiennage wala garde corps rapproché wala ku leen escortel seen convoi wala seen transport njaayum matériel de sécurité nettoiement professionnel avec déménagement wala nga bëgg ñu la dressel say chien wala ay vidéo de surveillance agence arène bi sécurité loolu rek moo ko tax a sampe ngir yombalal leen jàppandi lépp lu jëm ci wàllu sécurité te ngeen koy yittewoo bu dee ci wàllu formation professionnelle nag ñoom dañ leen a sampal institut de formation au métier de l'économie muy institut bi nga xam foo mën di nekk foo mën di nekk ak ci loo mën di yëngu boo bëggee ñu former la ci yile métier daw sil gaaw am sa diplôme nekk professionnel lu ci wàllu agriculture ci wàllu horticulture ci wàllu élevage entrepreneuriat restauration ci wàllu informatique bureautique wàllu sérigraphie wàllu infographie wàllu mécanique automobile auto école gestion de caisse ak assistante de direction boo ñëwee ci bile institut danañ la former jox la métier jox la sa diplôme ngay wéy di ko jariñoo kon mbokki Sénégal yéen ndaw ñi nga xam ne amagu leen wala formation jafe leen lool daw leen seeti arène de sécurité wala institut de formation bi nga xam ne boo ca tàbbee da nga am diplôme da nga am métier te boo génnee da nga noppal sa bopp bu ngeen bëggee jokkoo ak ñun mën ngeen ñoo woo ci 33 857 5019 wala ci 77 134 71 94 wala ci 77 471 22 92 kon mbokki Sénégal yéen jeunesse bi laay waxal association fils njiital Cheikh Ahmadou Bamba Buub ñii ñëw fa yéene tontu ci seeni laaj lu jëm ci wàllu formation ngeen bëgg a nekk ay professionnel lu jëm ci wàllu formation ngeen bëgg a nekk boroomi métier métier ngir mën a laaj seen i àq ak seen i yelleef ñu ne formation yi nag ñu ngi war a amal démarrage officiel bi le 13 février fii ci Parcelles Assainies unité 22 numéro kon daw leen gaaw mbokk yi inscrire jël seen formation bu jaar yoon ngir am métier bi méngoog seen bëgg kon mbir maa ngoog mbiri ñëpp képp ku bëgg a formé dawal gaaw ndax ndaw ñi rekk ko tax a samp ci diwaanu Sénégal. kan moo ëpp ay nit Jésus Christ ci àdduna bi Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ay nit ci àdduna bi pourtant loolu dal ci Jésus Christ dal na Mohamed ndax ñi nekkoon ci biiram ñoom Abdallah ibn Salul ak ñoom seen demoon na baxam xam ni ñii ay naafeq lañu mu xam ko alquran ñëw na ida jaaka almunafiquna qaalu nashhadu innaka la rasulullahi wallahu yaalamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu inna almunafiqina la kaadibuun dañ doon ñëw ne ñun seede nañu yow yaay yonente seet nañ ñu yàlla allah mooy yàlla waaye gëmuñu fi dara te pourtant ci biir moo tax di nga ci gis loolu di ci gis it persécution ñu dal sa kaw ñi ñu ñu gaañ leen ñi ñu rey leen ñi ñu defal leen def leen lu métti waaye boobu nga war a gën a am dëgër xam ne yaa nga ca yoon ba man de gëm naa ni projet bii te su ma demoon ba am ci lu toll ni tarfata ayen ci dut yàlla mët ci saa si lay bàyyi waaye dama gën ni projet bii mooy defar senegal ba faw ndax ñun ñi ko yor soxlawuñu dara dara salaire président sax bëgguñu moo tax ci fan yi di ñëw dinaa ñëwaat ak yéen ci lu gën a yaatu ci li fi xewoon li fi xew ak fi ñu jëm ndax xam nañ di xew xam nañ fi fi mbiri di jëm waaye fi mu toll nii ñaan leen tabaski jàmm ne leen lépp lu ne woon seen xel ci ay njaqare ak ay xalaat génne leen ko bu leen kenn stressé li ma leen yàgg wax dem leen ngeen feet feet bu neex ak seeni famille seeni mbokk seeni baay seeni ndey seeni doom seeni soxna seeni jëkkër seeni dëkkandoo profité leen bu baax ci xar bi ñaanal leen réew mi parce que bésub ñaan la it bu ñu génnee ci loolu yëpp nag ñu jublu ci liggéey bi